ngeen anda ak ñoom combat bi ndax combat bi combat la bo xamne president Abdoulaye Wade waxon nako 2004 ci am meeting bu mu amalon ci ndax waxon na len ne pétrole du Sénégal jël nañu ko jox ko ay nit ño xamanteni ni mujj askan bi du gagné dara lolé mo nun amalon lañu ci mois de janvier bi jall ben demande d'enquête parlementaire demande d'enquête parlementaire vous, vous, ñu ko proposition de résolution portant condition d'enquête parlementaire portant sur les conditions d'octroi d'octroi des permis de recherche vous, vous ko défé président Niass da koy jël tek ci tankam defoon nañu fait demande d'enquête parlementaire ci Prodac président Niass jël ko tek ci defoon nañu demande d'enquête parlementaire ci Arcelor Métal président Moustapha Niass jël ko teg ko tànkam benn demande dong la jàllale li demande yi di bari bari muy demande d'enquête parlementaire ci 94 milliards yi yooyu dong la jàllale yi ci des yëpp da koo jël mu teg ci tànkam ca loolu xam nañ ne la tax mu jàllale ko benn jëmm a tax muy président Sonko loolu doo nga tax mu jàllale boobu waaye yi nga xamante ne demande d'enquête parlementaire yi nga xam dafa mise ci kaw Aliou Sall dafa tégué ci kaw Aliou Sall daf ko lem ba mu jékk tek ci tankam bi nga xamante arcelor metal nga xamné ali Aly Ngouille la da koy jël tek ci tankam Prodac bi nga xamné ne Mame Mbaye la da koy jël tek ci tankam ñu gis né tay Sénégal réew la bo xamante tay tey ñi ko yor président Wade lim ñu wax